abonné leen leen dal leen ak jàmm sénégalais yépp daal di xëyandoo ak lu leen naqari lu leen metti lool ci jëmm ji nga xam ne moom mooy Cheikh Bara Cheikh Bara Ndiaye ñu gën ko miin ci borom def gisa mën nañoo daal di jàpp kënekat moom mii nga xam ne nag liggéeyal na askanu sunu gaal mën nañ ne loo xam ne rek jamono bi ñu toll nii fayaguñ ko ko ci ay waxam ci ay jëfam ba tax ñu baree bari daal di koy ràññee ci ay palaato yoo xam ne rek man ka daan faral di amal moom mii di Cheikh Bara Ndiaye gannaaw ba ñu daal di jot ay xibaar ne woon kat arrêté nañ ko jamono bu yàgg boobu ba tey. mu daal di nekk nag ci kaso bi di def li nga xam ne rek moom mooy grève ba taxoon sax mu daal di koy yóbbu ci li nga xam ne rek moom mooy ak lompañ maanaam wér gi yaramam demeetul woon noonu ba taxoon ñu daal di koy rawale mën nañoo jàpp ko ni jamono bi ñu toll nii wér gi yaramam dafa daal di gën a sooxe bu baax a baax gannaaw ki nga xam ne rek moom mooy Serigne Abdou Samad mën nañoo jàpp ko ni ak yeneen i délégation yoo xam ne rek demoon nañ daal di koy yóbbul li nga xam ne rek moom mooy ay banaana ay pom ak ay lekk yoo xam ne rek ci ndigalu sëñ bi di sëriñ Muntaxa Mbàkke la pour nag mu daal di ko koy jox mu daal di bàyyi grève de la faim ba nga xam ne ma nga ko doon amal ni ki démb loole kat mën nañ ne jóge nañ tuubaa dem ba yegg diwaanu Ndakaaru te mujj ñoo gis kii di Cheikh Bara Ndiaye lan moo ko waral gannaaw ñi ko mujj a gis ne woon bañ koy gis wér gi yaramam dafa xawoon a sooxe lu bëree bari loolee moo ko ba jamono bi ñu toll nii mën nañ ne soxnaam si nga xam ne sax moo ko daan toppatoo dañ kaa daal di woon a xañ li nga xam ne rek moom mooy accès si pour nag muy dem di ko toppatoo di ñaan yàlla mu yokk